asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah jeudi 3 décembre 2020 ñu ak yéen ci likkaay suñu làmb la ñuy xëy tey doore ko. mu mel ni ki yëglikaay bi nga xam ne moom moo di sunu lamb nag moom tey fenn la xëy génn maanaam ñaari mbër yoo xam ne ku ne xam ne ne seen combat taxaw na di combat ramas muy diggante Bombardier mi nekk roi xam ne nekkoon na roi des arènes di Balla Gaye numéro 2 ka fa jaar nag ku dul Gaston Mbengue yëglikaay bi nag tey dafa xëy ñëw gëstu ñoom ñaar ñii maanaam juróomi at yu mujj yi daal ku ci la nga def bu fekkente ne moom moo di Balla Gaye numéro atam yu mujj yi daal bu bëggee dégg dëgg sunu lamb mu ngi nuy xam ne daal def na ñetti combat ñaari victoire ak benn défaite ak li nga xam ne nii toll na ci ñettet yoo xam ne année balance na ko maanaam trois année balance ñàkk ci tamit ku nga xam ne moo ko daan tàggat di Balla Gaye numéro un bu dee Bombardier moom juróomi at yi nga xam ne moom la ñu génne bu bëggee dégg dëgg sunu làmb xamal nañu ne daal ñaari combat ci jot a am benn victoire benn défaite def ci ñeenti année balance ñàkk ci magam ja nga xam ne moo ko doon mënaat sa tamit di Pape Dia yëglikaay bi di sunu làmb tey na ba ñu commencé ba tey seeni palmarès Bombardier mu ngi ñëw ci làmb ji boo njëkk a bëreel la 4 avril 1995 loolu la Bombardier jot a def am lu toll ci 18 victoire ak 8 défaites yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy ñëw wax nu lool bu dee Balla Gaye numéro 2 la moom victoire la am ak 4 défaites yëglikaay bi dina mu ngi njëkk a ñëw ci làmb ji combat bu njëkk digganteem ak Samba Lawbe le 2 janvier 2005 sunu làmb tey moo xëy toppal ñu ñaari mbër yooyu nga xam ne nii war na noo bëre keneen koo xam ne nii moom amul combat waaye mbër la nekk ci làmb ji mu ngi xëy di wax jaar-jaaram muy ondu la fou digganteem ak li nga xam ne nii moom moo di làmb ondu daal ñëw na ci turam mi nga xam ne nii moom la njëkk a bëree nee na mu njëkk a ci làmb daal ne na ka nga xam ne nii moom moo di ñaga siñoor la tuddoon boppam la ko waraloon nag nee na njaga jóob la gisoon mu neexoon ko lool mu bëggoon ko ndax na mu mënoon a bëree ak na mu gëmoon boppam mu tudde ko boppam ba dem ba këram sax wax ko ko waaye nee na nag mbir ma la ko dindi maanaam lenn la nee na daa dem ba gis ne waa ji daal faalewu ko lijjantiwu ko mook ay mbokkam soo amee combat du ko ci gis du ko ca dégg nee na nag ba mu maaree la dindi woow a tur waaye maanaam Onde le daal di ñëw Onde le nag wax na la ko indi xaritam bu ñuy wax Souleymane daal moo ko ko tudde la ko waral nag ne ñoom ñaar dañ daan faral di xeex ci ay cent francs di ko xëccoog yu mel ni ki noonu ñu dem ba di ko di ko wooye Onde Onde ja nag dem ba Onde le Foudia ca daal maanaam Onde daal tey ñëw na ci lu baree baree bari bira seen ak CNC ba Aline Sarr ka nga xam ne moom mooy Matar Ba bari na tey ay wax yoo xam ne moom moo di ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu lamb ipo ngaari moom di micro central ba la mu xëy xam ne daal dañ leen ba des daal lamb tey jëg jóg démb daal la gis naag wute moom am na ci bu baax a baax a baax yëglikaay bi xëy na tey wax nu ko keneen koo xam ne ni moom dafa démissionné muy sëm kan ma nga xam ne nag moom moo jiitoon parcelle mbooloo yëglikaay bi xëy na tey wax nu ko xamal nañu nag AG daal maanaam assemblée générale daal danañu ko amal le 20 décembre ñoom waa parcelle mbooloo yooyu nga xam ne nii daal Sénégal ñu nga ca Parcelles Assainies yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy ñëw tey wax nu lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne wala keneen koo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci moom muy jàk sa mi nga xam ne daal ab promoteur lu simple la wala promoteur u làmb la yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci jàk seq ak moom waxtaan wu yaatoo yaatu Jax daal wax na lan mooy nekk ay solution ngir làmb ji mën a dem ca kanam mën a am xaalis ak itam def ay mbir yoo xam ne jàpp na ne bu ñu ko taxawalee bu keroogee mbir a baax bokk na ci nag fu mel ni mbuur daal la nga xam ne moom moo di arène yoo xam ne Jax seq na ko waxtaan tey ak Abdoulaye Dembélé ku bi sunu làmb moom nga fa fekk lu yaatoo yaatu ba tey bu ñu fa jógee dem record Jax lañ xam ne nag record la mu ko xëy tudde daal maanaam bu roi des arènes amee ci làmb ji wàllum li simple ba moom Jax boo bëggee dégg dëgg moom mooy roi promoteur yi koy tëgg ndax nag yëglikaay bi ñëw na ci moom ak la nga xam ne jot na ko caa dugal ci ab xaalis toll ci 126 millions yu tegal ci loo xam ne 35 journée la mel ni kon jagsi daal li simple ba moom mu ngi cay wane boppam moo tax duut ñaan ma nga xam ne nag promoteur li simple la daal la moo xam ne daal dana na jagsi ci boppam daal li am ba des daal lamb ji moom li saafara mu ngi koy dundal bu baax a baax Ousmane Ndour di amateur tamit nekk ca li simple ba dana na jagsaal fi mu jagsi daal mérité na fi mu nekk ni ñu gën ko soutenir jàpp ko ndax nag la muy def leer na te fa mu koy ci yoon la rawati li simple ab Ablaye Diop tamit ñëw na wax ca moom borom sum sum production daal wax na ca jax ak yeneen yoo xam ne ni ñëw nañ ca mel ni kon daal tey loolu mu nga fa xam ne moo di record bu ñu demee ca Lutte TV nag moom kan fay fekk mooy ka nga xam ne nii moom moo di liiru jaan liiru ci coow li nga xam ne topp na ko fa nii diggante ma xale bu jigéen ba doon jël daal daa mel ni liiru nag génnaat na fa nga xam ne moo di ca Lutte ay leeral mel ni kon daal tey loolu moo fi ñëwoon tey ci yëglikaay yi nga xam ne ni ñoom ñoo yëngatu ci wàllum làmb waaye di wax ne nag kon gaa yi jàpp leen ko Babacar nag tey mu nga fa nga xam ne moom moo di Equivox Equivox Arena Equivox TV mel ni kon daal yéen xam ngeen ne Equivox lamb 100 pour cent Equivox information général la ko waral nag bu ñu nee làmb ku ne xam na ne Tyson 2 Franc fii lay xewe ku ne xam na ne Garga 2 Mama Lamine fii lay xewe alias Biram Caatu Ngéwél fii lay xewe Baye Mandione Junior Fourier fii lay xewe ak yeneen combat yoo xam ne daal Equivox nar na koo def te li simple ba tamit dafay sab sap kon daal gaa yi léegi jàppale leen ko abonné leen ko Equivox Arena Equivox TV borom C5 ya du mën a ñàkk fii lay xewe asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet ñu suivre ci Equivox TV Equivox Arena ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag ñu ngi ci alxames maanaam jeudi 3 décembre 2020 ñuy nuyu ñëpp di ziar ñëpp ñaanal ñëpp jàmm waa leen wax ne nag a seen soppe seen xarit seen am di jàmm ki leen bëgg lool yéen internautes yi ngeen bëgg ko tamit moo leen di nuyu muy Babacar bi ngeen xam ci làmb tey nag ma leen di nuyoo fi nga xam ne moom mooy Equivox kon defe naa yéen ngi doon dégg Babacar jóge na fii fii lay dem faa lay dem yàlla def na nag Babacar te Equivox la ñëw ak ñuy ñaan yàlla tamit ñëw bu ñu fi ñëw yàlla na nekk njiglaayal Equivox yàlla nekk li jig Equivox yàlla yàlla na suñu ñëw bi yàlla na tax yàlla na fi fi jaare Equivox àddina yëpp xam ko loolu la ñu yéene et puis tamit di ñaan yàlla liñ fi am comme ay défi yàlla nañu yàlla dimbali jàppale ñu ak ñi ñu fi fekk ak ñëpp ñu fi war a ñëw ba ñu relever défi yooyu te mooy lan fexe ba yéen sénégalais yi ngeen jëpp jot lépp luy xibaar ci wàllum làmb ci jotin bu mu gën a rafete mais jot tamit lépp luy xibaar ci wàllum réew mi xibaar mu mën a doon moo xam culture la moo xam sport la moo xam sante la moo xam religion lu mu mën a doon rek parce que Equivox bu ñu nee bu ngeen gisee ni sama droite lu ngeen di seen Equivox TV ngeen di seen kooku moom télévision la bi nga xam ne nii maanaam luy ñëw la incha allah d'ici quelque temps d'ici quelques jours mu ngi dox sax déjà maanaam Equivox TV maanaam foo xam ne la lépp loo xam ne soxal na réew mi da ngeen ko fa xel di seetaan bu ngeen xoolee si sama gauche ni da ngeen fa gis Equivox Arena muy la voix de làmb ji foofu tamit defe naa bu ngeen fa xoolee kon lépp luy làmb tamit da ngeen ko xaar foofu tey nag loolu la woon di leen di wax ne ngeen dalal ma jàmm yéen internetu Equivox TV yépp ak Equivox Arena yi tey nag ni ngeen ko xamee sunu làmb la ñuy xëy tey doo ko mu mel ni kon yëglikaay ba Bombardier la ñëw ak Balla Gaye ci seen combat bu nga ne taxaw na yëglikaay bi ñëw ci ku ci ne juróom at yi ñu génn li nga mujj a def boo xool nag ci ay chiffres Balla Gaye am na ci 3 combats 2 ko jegeñoon la formé ko muy Balla Gaye Ndour ñu ko koy jaalat di ñaan victoire benn défaite ñàkk ci magam di Pape Dia moom ñu ko koy jaalewaat di ñaan yàlla mu yërëm ko te xare ko aljana mel ni kon boo leen xoolee ci 5 yooyu daa mel ni Balla performance ci nombre de victoire moo ëppale Bombardier parce que 3 2 victoire la benn défaite mel ni Bombardier benn victoire benn défaite mel ni ñoom ñaar nag boo xoolee ci peut ci pat ci côté palmarès ah maanaam Bombardier moo jiitu Balla Lamb moo jiitu ci Balla Lamb lu baree baree bari parce que boo xoolee Bombardier premier combat am mu ngi ko bëreeg Thiaw Tchengo le 4 avril yaa ngi dégg kon defe naa ne booba Balla ñëwagul Balla moom mu ngi ñëw digganteem ak Samba Laobé la njëkk a bëree le diggante bi ah boo xoolee dix ans fukki at dox na ci diggante bi rawee na ko fukki at kon mu mel ni kon magam la ci làmb 18 victoire la Bombardier am ak 4 défaites Balla Gaye am 21 victoire ak li nga xam ne moom mooy 4 défaites mel ni loolu boo ko xoolee nag moo lay wan ne li olof di wax garab ci kaw lay fekkante Bombardier nag ci biir loolu dégg na fi roi des arènes ñaar yoon Balla Gaye dégg ko fi benn yoon ñoom ñaar ñëpp actuellement kenn ku ñu ñaan yàlla yegg ci mais xam naa daal seen combat bi yoon nar naa nekk xalaat naa ci wàllu bëre xeex dina dàq ba passé woon parce que la ñaan mooy ñaari mbir dinañ pare te am nañu yàqee ne danañu pare su bés ba parce que li tax mu wax loolu mooy combat ba dañ ci doon dégg ci yenn soppe Balla ñu naan Balla pare wu ko nangam sangam dafa wér a diwoon te bii yoon ñu ngi ñaan yàlla kon loola amoon bañ am maanaam ñoom ñoom ku nekk wér plek ñëpp wér ñu seetaan combat bi ñu bëree ko ci jàmm que le mais xam naa ne ñaari jàmbaari fekk tëdd lañu ñaari bërekat lañ te itam ay royukaay lañ ci ñi nga xam ne ay xal lañ waral tey Ndiaga Diop senior bi mu njëkk a bëree mu xëy bàyyi ko Ndiaga Diop la bëggoon ne na daan ko topp bëggoon ko lool waaye nag ne na ba mu commencé di bëre tudd turam gis na ne daal waa joxu ko xëy na gëdd bi ci war mu dindi ko loo xam ne nag àddina nag moom wax dëgg yàlla am na loo xam ne hélas ku la faale nga faale ko loolu mooy àddina waaye nag mu mel ni kon Onde tamit marqué na empreinte tam ci làmb parce que ni na beneen style te itam ni nga koy gisee noonu mën nga gis Onde lëf wu xeeb ko mais bëree dàqu ko koo def ak a jafe ku ne gis na ko moom mu diggante ak Ada Fass muy xale boo xam ne macha allah uuf ay mbër ñu mel ni ñoom soq ñoom jët li ñoom ñëpp ñu nekk foofu ci xam sa cosaan di leen nuyu di leen ziar mel ni kon mbër la moo xam tamit ku saf xorom la moom ondu la fu dafa bëggoon nag xëccoo ay cent francs daan ci xeex benn xaritam bu ñuy wax Souleymane nee na loolu moo indi turu li nga xam ne ni moom moo di ah turu ondu la fu bi <laughs> waaw mu mel ba tey moom ku ko dégg-dégg koog ni muy réparer ni muy défendre dof yi yoog yu mel ni ki noonu xam nga ñu nuyu yaayam bële ca grand baaw di Ndeye Marie di yaayu ondu la fu ma koy bëggee bu baax a mais ba tey bu ñu continuer ci yëglekaay bi Ipongaar yi ñëw na jàpp na lambi démb ak lambi tey ah différence waaw loolu moom mënta ñàkk parce que tamit il y a dix ans li amoon ak li am entre ci deux mille vingt bi du benn li amoon ci année quatre vingt yi hélas ak li am ci année 2000 yi mënta doon benn àddina noonu lay changé quoi muy ci football bi muy ci làmb muy ci volley bi muy ci basket bi parce que lépp àddina noonu lay doxee waaw parce que at fukki at yu ne yàlla dina indi leneen indi beneen xalaat indi nangam ak sangam loolu mooy àddina li ci am rek nañ fexe sàmm làmb ji ba mu gën a suñu papa Ipo Ngaar yi ñu koy ñaanal jàmm moom tamit suñu papa ñoxo bàyyi parce que ñoom ku trouvé waat président bu bees muy waa par seen mbooloo jax sa ah, parce que acteur la bu am solo ci làmb moom jax ci lit sans frappe bi ci lit avec frappe bi muy koo xam ne vraiment ñu koy nuyu di ko ziar waaw di ko ñaanal jàmm muy koo xam ne itam ku am franc parler ndax li ne ci moom da koy wax waaye itam borom xalaat la wax dëgg yàlla ba toogee moom waxtaan ak moom di nga xam ne ku am xalaat la te defe naa làmb ji avancé jëm moom ba tey buñ demee record moom lan fay fekk mel ni que mu nga fa tey tamit ah record nag la mu gis mooy jax ci 35 journée yoo xam ne def na ko dugal na ci làmb ji lu toll ci 126 millions yu tegal Euh, le roi des maanaam nekk ko maanaam mooy roi promoteur yi ci lutte simple defe naa loolu xel da koy nangu ndax na xaalis bu toll noonu ci lutte simple nga investir ko ci ci trente cinq journée defe naa kon yow yaa ngay dundal booba discipline muy jàkk sa ba tey moo tax waa lutte simple ba tamit

promoteur u làmb yi parce que tamit hélas jël say million mënoon ko def feneen dugal ko ci làmb defe naa mérito nga jàppale muy jàk sak ñoom pa Abdou Fall ak ñoom Vavox Arena ñoom ñoom ñëpp ñoom Fallou Ndiaye ak Kanje kum ci man a doon ñoom ji euh, Mamadou Dieye Sène ak ñoom ñëpp promoteur yi dañ jar a jàppale surtout ñoom Baba Diaw xam nga ñoom ñëpp daal parce que mu limee dinaa jum mais jar nañu soutenir parce que ñu ngi wàññi semence bi si dëkk bi ñoom promoteur làmb yooyu Ablaye Diop bu sum tamit wax na ci lu mel noonu mel ni moom tamit ñu ngi koy nuyu di ko ziar waaye tamit bu ñu demee TV fañ fay fekk mooy Lirou Diane ku ne gis na coow li ci fan yi digganteem ak benn xale bu jigéen boo xam ne da doon laaj mbir yi daal xam ne nii ah daa mel ni sénégalais yi ñaawlu ko parce que tamit loolu bokkul ak li ñu war a véhiculer comme ay image nit ñi di ko seetaan parce que dañu la réew moom Alaaji Malick réewum maam Limaamul Mahdiyu réewum maam yi muy réew moo xam ne dañ fi soxla ay teggin njuumte nag day am xëy na xale ba dafa juum waaye defe naa yooyu xëy na beneen yoon dootu ko dal waaw loolu nag Lirou Diane ñëw na ca moom tamit di ca leeral ca fa nga xam ne mooy ca Lutte TV parce que olof na wax waxaat du bëri wax mais dara ay wax la weddi tam du ragal mais dindi tuuma la moo tax xëy na li at foofu ca Lutte TV di fa leeralaat lu mel ni ki noonu mel ni kon tey daal loolu moo fi ñëwoon ci yëglekaay yi su ngeen ma xoolee nag bu ngeen gisee Vox ah Vox TV bële yaa ngi dégg boobu Equivox TV boobu ngeen di gis sama droit wax naa leen ko maanaam information général lay def télévision la bii tamit lépp luy lamb di ngeen ko ci am ba mu doy sëkk télévision la muy Vox Arena di kàddu lamb ji noonu la demee muy nuyu waa Vox Arena groupe bi yëpp maa ngi leen nuyu. Aline Badara Diouf ma koy nuyu moom di doomu Passy waaw muy nuyu waa Passy yépp maa ngi koy nuyu di nuyu tamit ki nga xam ne moom mooy Cheikhou Omar waaw borom dooleeg xel maa ngi koy nuyu mook madamam depuis Paris la France maa ngi koy bégge bu baax a baax mais di nuyu nag sama caméraman bi nga xam ne mooy monteur bi caméraman bi l'infatigable laa ko tudd muy El Hadj Diouf moom mooy numéro 11 de mente waaw jàpp leen loolu caméraman monteur bu mucc ayib mooy Elas te mu ñu nee Elas Diouf nag moom Elas Diouf la tudd kon tombé waral ay gaaf mooy numéro 11 moo tax kon defe naa ëpp ko xarañte dina jafe gën koo nekk technique ëpp ko technique dana jafe ndax ku ne gis na li muy liggéey fan yi ci ensemble bi gis ngeen gis ko ak feneen ak feneen kon Elas yow itam jaaraama di wax ne daal ñëw nañ fii pour fas yéene liggéey yàlla nañ yàlla dimbali ba xol yeeg xel yeeg xalaat yépp déggoo mais di ñaanal jàmm suma soppe yi fans club Babacar fans club Equivox parce que loolu lépp taxaw na ngir soutenir Babacar leen wax ne tamit xaar leen lépp lu nga soxla ci lamb nañ leen ko jox fii di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp a ñoom koy béggee bu baax a di nuyu sama sopp yëpp ñoom Grand Lay ñoom Jigé ñoom Pape Ndiaye Pape Lo Baye ñoom ñëpp maa ngi nuyu ñoom Awa Diop tuuti Yaay Sarr xajiroos Ndiaye Cheikh Cheikh Bass ah maa ngi koy bëggee moom tamit du ku ma sopp di nuyu ñëpp daal hélas noonu la demee di nuyu nag maas ca til ca ca di jaay ko tu fëgg jaay di soppi Modou xarañ lo maas maa ngi lay bëggee bu baax a baax mais waa ànd jàpp aussi fa may entraîné du ma leen fàtte côte su demb ak ñoom njàmme ñoom ñëpp groupe baax tamit maa Samba Dieye lépp yow la maa ngi lay bëggee bu baax a baax di wax ne que daal képp ku soxla Babacar reportage yi ak yow mu yamu àndal ñëwal fii Vox Arena Vox TV da ngeen fi gis yeneen plateau ndax lii commencement la rek des na yeneen yoo xam ne ñu ngi ciy liggéey tournoi C5 bi xam ngeen ne fii la amee jur benn journée juróomi combat yoo xam ne lépp ay grand combat la xam ngeen ne ku la jox Franc Tyson 2 lu ñu newoon mënta ne ñu ne dit ne waaye ñu di Mama Lamine Tarkinda boobu ci jàmm gën ak Garga 2 moom parcelle bi nga xam ne nañ ci xale dàq bëri la boobu ñu ne dit ne waaye alias Birame technique Sekar ba ak kan caatu ngeen mi nga xam ne fi mu ne moo sonal bawal bawal yi ñu ne dit ne waaye Ma Ndione si ne rakk ko Baye Ma Ndione ah ak kan Fourier mi fi bëre grand combat bi nga xam ne daaw moom la ñëpp di waxtaane Assane Ndiaye tëggun diggante ma bébé Diène ah hélas ak moustique ak kële noiro loolu kon vox daal jàmm lañu ne di ñaal kon gars yi xaar leen tournoi ba G5 lañ ko tudde drapeau docteur Macoumba Diouf sama xarit meeru lat mbeng kon di nuyu Saalum Saalum yépp di nuyu képp fu sénégalais nekk rek hélas di wax ne daal noonu la demee woon incha allahu rabbi yàlla nañu yàlla defal jàmm def ko ci réew mi Pape Bouba Diop di ko jàllewaat Sénégal di ñaan yàlla yërëm ko te xare ko aljana di jox gars yi rendez rek suba xaar leen ci yeneen reportage nag incha allahu rabbi ndax war nañoo dem ndaayaan am lu ñu war def ak Tyson 2 te loolu dina neex loolu te dina yëngu incha allahu rabbi